ku ne woon bu ma desee ci coow li day léegi mu amub daaneel 24 heures yéen kaay naan ci loolee nag la bugaan géy nekk faf moom jiital gëm sa day ma ngay dem di deeyoo xalifi ci seeni nopp le regard yéen kaay naan man président bugaan géy dani ma nga dem ci kërug diine i mani la di fa kalaame président Macky Sall di ko wili pandé l'évidence yéen kaay naan man bugaan géy dani xalif général bu leew na ña seen Cheikh Maye day daf ko daal di décoré daal di koy honoré ba mar day taali l'exclusive yéen kaay naan kon déet moom kay bugaan dafa dem ci kër xalif yi di tëjoog nga xam ne mooy dëgg ji am ci réew mi gannaaw ba mu demee ca Touba moom Bougane Gueye Dany dem na ca Medina Baye ak ca Léona Niassène daal di waxtaanee la nga xam ne nag moom la Sall ngaari lam toora bur gële dëkkeek ñun ci réew mi naan leen Sall dafa yor yet woo xam ne daanaka daf ñu koy dóor ñun askan wi dóor yu métti te bu janoog yéen teex teex may ree wane geneenu kanam mag ñuy torturer moom président Macky Sall mag ñuy salfaañe sunu àq ak yelleef moom Sall nga ñuy caxat-caxatee ñun askan wi di ñu menacer te ci naan ñoon lu ma neex laay def ci yéen xanaa ngeen neexal ma fii ci Sénégal amul terroriste libération yéeni kaay nan kon moo ne am na ñun fi jàpp wax leen ay terroriste lan l'exclusif naan maan bugaan nee na kilifa diinay terroriste amul ci réew mi benn terroriste moo fi am mooy ki nga xam ne moo yor dooleeg sañ-sañ ci réew mi te jëmalewu ko kenn ku dul ci askanam naan leen dialogue national bi dil la Abdoulaye Dieye DG be ci l'indépendant yéeni kaay naan ko déet ma ne la réew mi ak fu mu toll ci wàlluk een ci wàllu waxante lu ñaaw ak salfaañe mbaadu nag dialogue dem waxtaane moo koy saafara bugaan gay dari ci l'exclusif yéeni kaay naan kon dialogue bi lu dul dil du ca génnee ko di jee naan man en tout cas Mamadou Lamine Thiam nee na gannaaw bi Karim Meïssa Wade dina ñibbisi waat ci réew mi bugaan ci l'exclusive naan la may a ngi gars yi daal bopp moo leen taxoon dem di dialogue te ba ca cappaandaw ga daa ngeen xam ni dialogue bi intérêt ñenn yi la bugaan gay dani naan xam naa xel ni Cheikh Mahi Niass am nay xibaar a boole kat la ko xam ni day defar waaye faaw ñu dem déeyoog moom la nga xam ni moo am ci réew mi fi mu ne Cheikh Mahi gërëm bugaan ñaanal ko waa Grand Place naan man Medina Baye ak lew nañu seen daal dina ñuy ñaanal Bougane Gueye Dany mu dem fa wili pande président Macky Sall ba maar day taal naan leen li leen Sall ngaari lam wax waroona ak la nga xam ni moo am mi force occulte amu fi terroriste amu fi lu dal Sénégal fi mu ne président Macky Sall moo ko ko teg tribune yéen kaay naan moom Bougane Gueye Dany kay dafa daal di effacer président Macky Sall ne saraax ci njabootu kilifa diine yi naan leen dëgg gi nga xam ne dégg gu ko mën Gueye moom laa leen andil moom xalif bu leew na ci waa grand place naan koon maa ngi lay maître Abdoulaye wadd ñun dey ñaanaluñu kudul ab liider njiital gëm sa bopp El Hadji bu c 2 nan koon engagement bi nga am ngir sa askan ak sam réew daal jaaxal na ma lool l'indépendant yéen kaay mel ni ku naan maan ku wax lii day wax la ca des Sénégal service bu sigi coor dañ koo yàq yaxeet ba maar day taali jël wiitir ya daal di koy caxat-caxatee yàq bunt ya plafond ya daal di ñuul kuk ak taal goo xam ni def nañ ko ca bërëb ba fi ne deesu ko mën a jëfandikoo ndax manifestant yoo xam ni dañoo daal di ci kawam Maguette seen directeur bu cour ci l'observateur naan lii ñu def réewum Sénégal daal daal di jël ñaari oomu état bi daal di koy samp fa nga xam ni sàll ngaari lam tooro foofu la gën a def gën faa réussir le ñu daal di koy yàq bu dul yëfu saay-saay ak meel liggéey jàmbur lu muy nuru màgget naan kuy werante yàq ak yëfu saay-saay amul ci réew mi dangaa doxantuwul ba UCAD ma ni te bërëb yi nga xam ne nag moo ëpp sañ-sañ ëpp doole ci biir UCAD googee la def katu ñaawtee fi daal di song bokk na ci sës si foofee salle multimédia bi dañu koo yàq ba maar day taali daal di koy taal ay bus yoo ne day def personnel hôtel buykat bi ñu daal di koy lakk bibliothèque bu université ba ñu daal di koy lakk faculté bu lettre ba ñu daal di lakk fa nga xam ni fala la nekk juróom fukki at ci ginnaaw lépp loo xam ni dencoon nañ ko ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lakk nañ ko faculté de droit ñu lakk amphithéâtre ñu lakk ay bureau ak i salle professeur ñu daal di lakk bus nga xam ni étudiants yi nekk ci fac médecine ak pharmacie moom lañ doon voyager ñu lakk direction générale bu COUD ñu taal ba mar day màgget na ba ñu demee ba xam ni COUD amatuñ luñ fa yàq dañoo daal di songu étudiants yi campus social ba daal di caxat caxatee fa nga xam ni foofu la étudiants yi dëkk màgget daal dina lii ngir ñu daal di koy defaraat dina jël temps wala ndax nag lépp loo xam ne liggéeyukaay la woon ca UCAD manifestant yi daal dinañ koy yàq ci anam wu ñaaw lool Omar Sow conseil spécial président Macky Sall APR yëmbal naan leen saay-saay rek jëfi rab ak jinne dong lañ gis ci réew mi Ousmane Sonko nag ànd ak ñoo xam ne dañuy caxat-caxatee alaluk askan wi caxat-caxatee seenu moomeel ak la nga xam ni def nañ ko ci réew mi te naan leen Sonko mooy kan ba kenn du ko àtt ci réew mi bu tooñee lan moo tax ba kenn du ko tëj ñoo xam ne nag ay bukki leen sàngoo deru bay soobu nag ci biir askan wi di yàq seenu moomeel Omar naan ñoo ñee ngemb nañu ba dëgër fas yéene jaamaarloo ak ñoom la nga xam ne Sall def na ko ci réew mi liggéey ko fi ñu nangu kenn di ko salfaañe te takk der yi ci réew mi day gàcce nga laama ñoom ndax nag budul woon ak ñoom làmbaay ñaaw Omar Sow naan nanu delloo si xel yi mooy dëgg ndax coow li coow li mooy réew mi moom yàq nañ ko l'info yéene kaay naan man Serigne Moustapha nee na réew mi yàqoogul ndax Sall ngaari bu ne troisième mandat la bëgg réew mi dana gën a yàqu wala ndax nag la amoon 2012 lu ko raw moom président Macky Sall dina ko dund gaaye naan kon la xew ca Amy Ndiaye nag mu nañ ko defaat ci assemblée bu boobaa assemblée bi ci boppam mooy daal di tas tasar sëriñ Moustapha naan ku ci nekk na ko xool sa bopp koo xam ni dangaa am sab ngëm-ngëm dëgg ci sab sëriñ doo nangu kenn ku koy manque de respect wala di ko moquer critique yéen kaay naan man coow laa nga cëppandub teen ba ndax Touba moom nee ñu élection dootu fa amati direct news ne ay yoo xam ni sëriñ Mountakha moo ko benn biro de vote dootul amati ca Touba tribune yéen kaay naan man gannaaw ba mu mayee juróomi million wal fajri daf ca jaaree ni politique moom day daal di dakk ca Touba le peuple quotidien naan man booba coow laa nga ca Ousmane Sonko mi nga xam ne coow li coow li daal Sonko am ñoo xam ne ña nga ànd ak président Macky Sall ndeke yoo ñu koo lënkoo ak Ousmane Sonko ci suuf le peuple naan man bokk na ci ñoom benn maire ak benn directeur général boo xam ne ma nga faree ca Tiwaawoon moom président Macky Sall nag xam na ni ñii ci moom la ñu féetee waaye daal ña ngay jokkoo ak Ousmane Sonko ca suuf libération Njaay naan maan ay ñooñam ña ngi leen di tëñ-tëñal ci anam woo xam ni metti na wala Wuli Njaay daal nañ koy jàppee ca Kër Masaar ab vocal moo ko daal di dugal yéene kaay bi naan maan diggante ginnaaw raay ak géréw ña fay jàppee ay militant Pastef di leen toppee ba ci wàllu financement terrorisme Bentalab Sow ñu daal di koy bàyyi moom Ousmane Sonko ba tey mi ngi tëju këram waa Pastef ci Vox Populi naan na leer Ousmane Sonko nga këram ba tey demul fenn benn kilifa diine woowu ko te it amul benn négocier bu muy def ak président Macky Sall Mamadou Gaynde Badiane coordonnateur bu grand Wade ca Pikine di le ci libération yéene kaay réew mi daal fi ñu toll ci ñaawteef tollu ko ci jafe-jafe dialogue boo xam ni bu sincère la jóge ci xol tàbbi ci xol ñu waxtaanee réew mi daal di koy péncoo lii yee mën a tax nag bépp danger bu bàyyeekoo ca biti bëgg salfaaña lompoñal suñub réew ñu daal di koy gatandu waxtaanee suñum réew mooy dëgg l'évidence yéene kaay naan maan ak lu mën a am jàppale ni tabaski bi jege si na xar amul te cher na yoor yoor naan maan jàppale nit Serigne Saliou Gueye ñaar fukki fan ak benn ngi ñu làq ko jant bi tere ko wax turbine sport naan maan ngeen jàpp it ne Modou Lo nee na bàyyi na làmb Dakar Times naan maan ngeen jàpp it ne concert Wally Balago Seck ca doom bu Paris ba am na fees na neex na Wally daal di def doom doom bu pari moom fara mareen bi daal di jël pari soppi ko mareen l'observateur naan maan coow laa ngi ci réew mi booba koo xam ne nag ab faram moo ko ëmbal te mi ngi ci buumu sëy mu fexe ba jiiñ far ba viol fexe ba tëjlu ko ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm abonné leen ci suñu chaîne YouTube mi ak Sénéinfo